mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM dimanche bu jot ñi lañ koy daal di amalee ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM tey nag ñu war ci dalal ki nga xam ni moom di Mamadou Moustapha Ndiaye ñu gën ko xamee ci Modou Bousso Ndiaye tête de liste Benno Yaakaar ci commune bu Sam Notaire euh, ba tey sëñ Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. merci monsieur Dramé ñu ngi lay fay euh, di lay remercier bi. Mm-hmm. vraiment di rafetlu initiative bi euh, group bi def muy Rewmi FM nu ka ñu ngi leen di encourager. Mhm. Ndiaye lañ ciy dalal daal di waxtaanee lépp loo xam ne nag aju na ci ak actualité ci biir réew mi ak biti réew waxtaanee itam ci lépp loo xam ne nag aju ca gox ba muy Sam Notaire boobu nga xam ne nag moom candidat la fa. laata loolu ni ki ëllëg la ñuy wax inauguration li nga xam ne moom moo jëm ci train express régional xaar bi yàggoon na lool date yi ñëw na ñu koy puus. nit ki ëllëg lañu ñu war a jëmmal inauguration bi ni mel lan moo ci sa xalaat gu njëkk en tant que ku nekk Benno Bokk Yaakaar. merci monsieur Dramé kon euh, li ñu njëkk rek mooy remercier son excellence euh, monsieur président de la république di wax ne suba la ñuy inaugurer le TER muy loo xam ne amal na njariñ askan wi. Euh, dama jàpp ne son excellence euh, li mu xalaat ba samp tey teer fii ci Sénégal rawatina Dakar euh, day nekk loo xam ne day am lu bëri lu muy def ci askan wi ndax ñëpp xam nañ jafe-jafe yi nit ñi am pour embouteillage yi nga xam ne dañ koy am war a xëy si mbaa ñu war a ñibbi kon teer bi day nekk loo xam ne dana yombal dem bay dikk fii si Ndakaaru di ñaan nag mu law ba aéroport AIBD kon wane na ne xalaat bu rafet la. mais fu ñuy waxee cent cinq cent ci Sénégal. ak ni mu mel tey est-ce que tarif bi itam cherul bu baax ci askan wi. waaw xam nga poos yi yemuñu xam nga boo waxee ne seer na wala seerul am na koo xam ne xëy na mënu ko mais xam nga jamono day doxee noo xam ne ku nekk lala sa doole may nga doxe ko loolu xëy na dana gën a yomb mais aussi nañ jàpp ne investissement bu lourd la te pour ñu rentabiliser ko aussi il faut que ñu def le minimum et je sais que président ñëpp xam nañ yëg-yëg bi mu am si askan wi kon nag li ñu wax du lu ñu inventé lu ñu gëstu lu ba étudier xam ne nekk na lu war a mën a nekk ndax kuy jógee tey jii ñiy jël taxi bokk bokkoo bu ñu jógee géejaay 1000 francs la ñu fay pour ñëw Dakar kon xëy na teer bi bu ñëwee euh, ñay jógee Tëngéej la ñuy fay diggante taxi bokk bokk xëy na kon du ñëpp ñoo ko mën am na xam ne xëy na paas tata lañ ñi mais jàpp nañ ne ay jumtukaay loo xam ne ku nekk la nga mën a jël nga jël ko loolu moo si ëpp solo. jàpp nga ni solution la tey. pour li nga xam ne moo jëm ci mbirum embouteillage moo mën ko fànq ba tax na trafic bi gën a mën a fluide ci diggante Rufisque Caaroy ba boor boobu ba yegg Ndakaaru jàpp nga ni li ni mel war na mën a indi solution. mën na indi solution ndax xam nga nit ñi tàmm nañu jël train la kon tey bu ñu mënee dem am TER train ex euh, express rapide kon wane na ne. loolu mu solution la parce que ni terrain bu la lañ doon jël te conditions yi ñu jël nekk na conditions yi doy waar da doon surchargé kon tey bu ñu leen joxee jumtukaay boo xam ne bu mucc ayib kon nag solution dëgg-dëgg solution la. <laughs> solution la mais ba tey gouvernement bu Sénégal mënuñu wax. Hmm. li mu dugal ci li mu koppar ci train bi. léeg-léeg nga dégg mille léegi léeg nga dégg six cent léeg-léeg nga dégg huit cent est-ce que euh, jotul itam ñu leeral askan wi li ci dugg comme koppar ñaata la. loolu euh, jarul nit ñi di yàkkamti ndax son excellence suba buy lancé. dana expliquer terre bi condition ak modalité yi ñu ko sampe xam nga Sénégal nag dañu ñu dee yàkkamte ku ne da ngay wax si loo xamul mais ndeyu mbi liggéey bu subaa dana leer lépp wan leen ne terre bii nga xam ne samp nañ ko si condition yi lañ ko sampe te bu soobee yàlla ñu ngi joxe coup d'envoi kon jarul ku nekk di wax parce que des fois dañuy dugg si loo xam ne sax maîtriser wuñ ko loolu bokk na lu ñuy sonal mais nañ xaar suba soo son sax dana wax li mu war a wax. est que comprendre terre bi ñëwul pour euh, comme politique lañ nekk ci wàccaayu élection. ñëw bëgg a askan wi pour euh, tey euh, électorat Benno Bokk Yaakaar gën ko téye est-ce que du ay ndëgg sërëx yi ngeen defal euh, askan Sénégal. non loolu weesu nañ ko xam nga son excellence li muy liggéey tey jii waxuma la teer géej waaye ña nga si BRT kon politique la de mobilité urbaine. mu taxawal ko etu ko gëm ne Sénégal dafa toll foo xam ne war nañu amay jumtukaay yu mucc ayib loolu mooy nit ku am vision xam ne tey ji dañoo weesu taf yëngal parce que loo xam ne tey ji bu fi taxee dana nekk d'une manière durable permettre nit ñi di dem di dikk sans difficulté kon loolu du affaire politique. wax nga ko léegi euh, ñu ne TER ne BRT tey askanu géejawaay ak coono ji ñuy daj. ci li nga xam ne moom moo jëm ci BRT bi jàpp parcelle xàll yooyu yëpp nga xam ni chantier la mais gis nañ dëkk bi ni mu mel ak chantier xataay bi méttiwaay bi askan bi ñu ngi ñu ngi souffrir bu baax nag. waaw mais xam nga ku bëgg omelette da nga toji nen. bu ñu bëggee am lu mucc ayib nañu muñ liggéey bi yegg. waaye soobandoo lépp itam est-ce que solution la woon. waa mais euh, même bu ñu ko soobandoo def nañ ay voies de contournement c'est bien organisé et c'est bien ba am nañ même ay euh, euh, agent yu ñuy teg ñu ñuy circu ñuy yor circulation bi Sénégal nag mooy réew moo xam ne nit ñi dañoo yàkkamti il faut que nit ñi amaat patience ne tey jii am na xam bu ñu ko bëggee il faut que travaux yi yegg ci jàmm nit ñi dem ak mënoo defar te nit ñi du ñu am encore kon nañu muñ xam ne lii ñuy defar dañ koy defar ngir askan wi te bu paree dana nekk njariñu askan wi. dañ koy defar bu paree dina nekk njëriñu askan wi beneen ponk bi nga xam ne itteel na askanu Sénégal li jëm ci wàllum pétrole ak gaz gis nañ fii njiitu réew mi woote na fi ab ndaje fële ca Sikaat ñëw leen ñu waxtaan ci li nga xam ne moo war a jëm wala li war a tukkee si li nga xam ne moo jëm ci gaz beeg pétrole ban anam lañ mën a jaar euh, mel ni soxal transparence moom moo yitteel tey njiitu réew mi. xam nga àdduna bi foofu la toll maanaam nit ñi tey ñëpp am information nit ñi xale bi gën a tuuti tey ji am na niveau d'information parce que tey jii avec le numérique nit ki lu mu bëgg a xam mën na ko xam nit nag bu fekkee da nga jite askan ñu xam ne am na meññeef boo xam ne day am ngir njariñ askan bi bu woowee nit ñi neen lii ñu war a am nañ ko waxtaanee ngir askan bi ñu xam na muy séddaloo ba ku nekk mun sa jot wàllam waaye aussi ñu xalaat ëllëg ñi nga xam ne war nañ ko war war nañ ñi ëllëgu Sénégal dañ ci am cër kon kooku gàcc ngalaama ndax moom la sénégalais fal mu yor euh, baatu réew mi kon bu jëlee loolu baatu réew mu delloowaat ko askan wi kon delloo na jox na cër askan wi te yaakaar naa ña fa toog ñëpp muy société civile bi muy organisation internationale ñëpp xam ne Sénégal tey jii démarche bi président jël mooy démarche inclusive parce que jamono toll na foo am ne kenn mënut a dogal yow dong ndax nit ñi euh, li ñu moom nañ koy waxtaane nañ koy waxtaane moom bu ko mayee population ñu permettre ñu fekkee ko kon mu ngi leen delloo cër nit nag boo jëlee cër bañ la jox nga delloo ko nit ñi nii dañu xam ne nam nawloo ngeen mais ci njëlbeen dañu gisoon nii li nga xam ne moo jëm ci mbirum contrat yi mm-hmm. opposition bi ci ñu ci bari ak ñenn benn pàcc ci société civile bi nee nañ mbir mi leerul woon dafa lëndamoon seen gët est-ce que jotul woon defoon ko njëlbeen laata ñu yegg fii tey waaw mais xam nga loolu loo gis lu ne ak étape la bu fekkee ne dañuy nekk étape boo xam ne recherche la dara génnagul looy wax ak nit ñi ndax li ngay wax ni day fekk loo xam ne sotti na bañ xam ne lii mën naa ne. ñenn sénégalais yi sax dañoo jàpp ni euh, gars yi pàccoon nañ pétrole. non loolu loolu xam nga des fois nga dégg ñu ni jaay na pétrole pétrole bu génnagul lu ñu koy jaaye saa il faut ñu baña a fooy xelu nit ñi jëlloo Sénégal yi cër lu ñuy gëstu amaguñu si wóor nan lañ ci waxtaan ak nit ñi mais bi gëstu leeree ne xam na Sénégal kat pétrole dat sangam pour mun nañu am premier baril pétrole yi mu woone leen kat kaay leen ñu waxtaane na lii ñu moom nan lañ koy doxee nan lañ koy séddale cër ku nekk ñu cër mais nag Sénégal euh, dañu jàpp ne euh, nañu arrêté di def politique politicienne si lu ne loolu nit ñi dofuñu les Sénégalais sont très avertis kon nañu bàyyi yenn yi di ko def yëfu caaxaan la kon ci jamono jooju est-ce que yi tam euh, ci wàllum communication war ñu xoolaat seen taxawaay lépp loo xam ne xibaar la buy tukki si ñoom mu war a leer si gëtu askan wi. mais xam nga yow loolu mi journal du la ko jàngal xam nga Sénégal euh, euh, sénégalais dañoo nekk ñu ñu ñu ñu ñu doy waar te yàlla moo leen may nit ñi sont très en avance beaucoup de sos maanaam la gestion de l' information parce que journaliste bi ne muy source pour joxe information mais souvent je pense que ça fait un bon bout de temps y a une communication gouvernementale chaque fois que ku mu concerné ministère bu mu concerné wala direction bu mu concerné au moins gouvernement am na audace ñëw jàkkaarloo presse bi def une communication pour que nit ñi poser seen question leeral kon loolu mënuñu def lu ëpp loolu kon nag en train de faire une bonne na ko waxee mm-hmm. sàmm jikko yi ab kuréel la goo xam ne dañu jug ñu ne la nga xam ne moo jëm ci borom ñaari tur yi lañ bëgg ñu voté ab loi remplacer article 319 bi nga xam ne moom moo nekk ci kayit yi bu ñu doxee ci kayit yi ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu yu ni mel. bind nañ ab kayit jëbbal ko ay député yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñu ci ëpp ci guddi ku jéggi lañ far. Hmm. jox leen ko ngir ñu dem défendre projet de loi bi lan moo ci sa commentaire. waa xam nga li may njëkk a wax mooy ne député bu ne wala war naa mën a am initiative. porter un projet du loi mais li ma bëgg a leeral foofu mooy ne tey bu ñu jëlee code pénal sénégalais mais loolu regle nañ ko parce que tout acte contre bu ñu fi gis loolu yoon teg la loxo mais souvent nit ñi dañuy am agenda politique di mbubboo yenn yi fekk li ñuy wax sa gëmuñu ko il faut que ñu éviter parce que loolu bu ñu si toogee di wax mooy ne ñu ngi ñuy bugg dugal ci kàmb goo xam ne amul njariñ ñun dañu am aada ak cosaan li président wax leer na loolu du lu ñuy lu lu du lu ñuy légaliser fii au Sénégal mais nag ni ki dem agenda politique et que tout le temps ñuy seet nan la ñuy dëgg sërëx nguur gi pour bugg a wan ne nit ñi alors que loolu ñun dépassé nañ ko parce que code pénal Sénégal da ko jël en compte kon nag yooyu débat euh, nañ ko teg de côté. code pénal daf ko jël en compte gis nañ itam xalif généraux yi ku nekk signé na ci ab pétition bi wane ni dañ ko war a dakkal mu mu mu ñu génne projet de boo xam ne dañuy wax ni lii abadan dootu fi amati dañ ko dakkal mais gis nañ ni euh, groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar seen njiit ay meeru ñi ngi ñu génne communiqué xaatim ne ñoom du ñu voté li ñu mel. est-ce que tey jàpp leen ni li nga xam ne moom moo jëm ci xalif généraux yooyu signé woon euh, seen kàddu dañ ko xaw a teggi tuuti. waaw xam nga loolu Sénégal dëkku diine la te xalif généraux yi dañ fi am cër boo xam ne sénégalais xam nañ ne am nañ fi cër bu mag mag te du lu ñu caaxaane ñoom loolu seen devoir la ndax ñun euh, ay jullit lañ ñii ay catholique ku nekk am na lu mu gëm te diine yi fi am yëpp kenn kenn mësu koo nangu. kon ñooñ dañu am rôle social bu ñu joué rôle de médiation bu ñu joué mais rôle de stabilité bu ñu joué kon xëy na bis di ñoo Sénégal mën naa yegg ba foofu mais nañ jàpp na Sénégal fi ñu toll nii képp kuy loi bi xeex na loolu te kenn du ko nangu parce que du bitim réew moo ñuy dicté loi pour ñu nangu loo xam ne du suñu aada suñu cosaan parce que xamuñu ko man dama jàpp ne. liggéey bi dafa war a gën a nekk si wàllu sensibilisation ñu informer éduquer waat njaboot gi ndax gis nañ jikko yoo xam ne xamuñu ko woon kon nag euh, nañu gën a tàggataan ndaw ñi pour xam leen ne ñun am nañ baax boo xam ne euh, moom la ñu euh, moom la xamee Sénégal démb tey doo ko dikk parce que ay nitu diine lañ te loolu kenn du ko mës a nangu en tout cas ñun gëmuñu ko ñu ne maintenant la nag mun na évoluer mun na évoluer mais man tey mënuma wax ci place su groupe parlementaire man en tant que Modou Bousso Ndiaye li ma wax ne man xam naa ne am naa gëm-gëm te du loolu lañuy lu ñuy toléré du loolu la ñuy toléré beneen euh, ponk ba nga xam ni waxtaanee nañ ko itam ci biir semaine bi mooy li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum député yi passeport diplomatique gis nañ ñu ne jéego am na ci kilifa bu yaana maar bàyyi nañ ko liberté provisoire lañ ko may yeneen député yi nga xam ne ñoom ñoo takke woon ci passeport diplomatique bi Mamadou Sall Boubacar Biaye wuyu jiwul ndax jotul convocation ki nga xam ne moom moo di Mamadou Sall moom sous mandat de dépôt lañ ko teg euh, dégg nañ ministre de la justice ne dëkk bi am na yoon loolu nga jàppam. waaw mais am na yoon. xam nga. waaw euh, ah, yéex na de. waaw mais yoon dafa bindoo noo xam ne am na ñu suñu borom jël na ñooñ ñoo ko yor. mais ñaata sénégalais ñoo nekk ci biir prison bi ku ci nekk am na délit bu mu def bu fekkee ne dañu jàpp ne dafa am groupe boo xam ne ñoom waruñoo bu ñu jéggat bu ñu fekkee wàcc nañu yoon bi ay nit spécial lañ loolu nanguwuñu ko ndax gënuñu ñeneen ñi nga xam ne yàlla nattu na leen bañ nekk ci biir prison bi kon il faut combat bi waru nekk ay combat personnel muy député muy ak ku mënti doon ñun ñëpp ñoo war a yem ci kaw loi kon képp koo xam ne wàcc na yoon rek yoon dafa war a dal ci waaye boo xoolee xeex bi ñu xeex am na ñoo xam ne kenn ki ginaar la sàcc wala kii dafa agressé wala dafa dafa jël alalu jàmbur mais pour pourquoi ñu bëgg wax ne diw def na loo xam ne wàcc na yoon ñu ni kooku nañ ko bàyyi muy député keneen yoon dafa war a def liggéeyam man laa gëm parce que ñun a yem ci kanamu yoon hmm. yoon dañu war a yem ci kanamu yoon mais am na ñoo xam ne dañu jàpp ni par parloo dafa am ci mbir mi surtout ñaari député yi ginnaaw ba ñu yëkkaniyee seen malaanu kiir laay ba tey kenn gil moo dem keneen ki wuyu jul kon dafa ñoom dañ jàpp ni yoon daal mi ngi jeng waaw mais loolu seen xalaat la rek mais xam nga bu fekkee ne député yi ñu wax ne dañoo wàcc yoon tegg nañ seen mbalaalu kii laay kon loolu am na lu muy tekki bu fekkoon dañ ne tekkiwuñ seen mbalaalu kii laay dañ naan ñii am na kon kii mais kuñ teg seen mbalaalu kii laay ñu bàyyi la yoon justice nag nañ ko bàyyi mu fonctionner na mu war a fonctionner euh, beneen bi ma bëgg a wax tey mhm. wala passeport diplomatique mais c'est plus profond ñaata élément ñaata ga amuñu ay élément gendarmerie yu jàpp amuñu ay élément yu nekkoon agent ay agent ministère des affaires yu ñu téye amuñu nekkoon présidence di yëf infériorité maanaam nañu bàyyi yoon def liggéey. ñoom kay li ñu bëgg mooy mbir mi dem ba ca cappaandaw ga. ma ni nañu bàyyi mbir mi zone yoon def liggéeyam te yaakaar naa dana def cappaandaw parce que président de la république am loo xam ne kenn du ko parce que loolu euh, di passeport di diplôme diplôme Sénégal bu ñu ko fooyee. parce que Sénégal dafa am lu muy représenté si àdduna bi day am lu muy représenté Afrique loolu ñu ko fooye kon ku wàcc yoon bi rek def loo war te dañuy bàyyi yoon def liggéeyam en tout cas man. Euh, loolu laa gëm te jàpp naa ne loolu mooy li am. demande disponibilité la ñaan ngir diirum ñetti at Guy Marius Sagna la bokk na ci FRAPP France Dégage euh, jàpp na nii liñ ko affecté bari na ci ci at mi euh, ba pare nar ko yóbbu Kédougou mu demande demande de disponibilité lu si sa xalaat ndax da nga jàpp ni dafa war a dem ak warut a dem. non xam nga Guy ak ku mënti doon fonctionnaire la. waaw loi du am na lu mu permettre fonctionnaire. ñaata nit ñooy liggéey dans des milieux dañu demande disponible dem liggéey dans dans le milieu de euh, des ONG wala dans d'autres dans le secteur privé c'est droit bu jàppee ne war naa laaj disponibilité pour trois ans am na droit laaj ko te loolu yoon may na ko. yoon may na ko ko euh, Souleymane Téliko bu ñu affecté ca dugg nag jàpp leen ni sanction la. non jàpp ma ne sanction la parce que nit kii aussi bu fekkee ne da nekk si euh, euh, ñu nekk fonctionnaire. bu fa moom Souleymane bu fa demuloon keneen a fay dem est-ce que Souleymane dafa gën keneen ka fa ne am na ñu nekk Ziguinchor am na ñu nekk feneen maanaam nit ki bu ñu la euh, affecté da ngay nangu ne yaa accepté doon fonctionnaire kon ku doon fonctionnaire nag la mu laaj bu ñu la jël ko nga dem liggéey quoi je pense que nit ki yoon moom. fu ñu la mën a yóbbu si parce que gënuñ Dakar warta gën Kédougou warta gën keneen ku nekk fa nga nekk rek la nga war a nga liggéey ko loolu ëpp solo Modou Moussa Ndiaye la ñuy dalal ci émission gox bi daal di waxtaane lépp loo xam ne tukkee ne ci actualité ci biir semaine bi beneen ponk bi nga xam ne mooy cadre unitaire de l'islam charte la ñu wax ñëpp signé ko élection jàmm lañ bëgg a woote ci wàllum politique apaisement bi naka nga gisee charte bi nga xam ne proposé nañ ko te Sénégal am na charte muy constitution Euh, naka nga gisee initiative boobu. waa xam nga Sénégal am na constitution le code électoral wax na ni élection yi déroulé ak yëpp mais Sénégal day ndëkku dëkku diisoo ñu am ay valeurs yoo xam ne par rapport ak suñu gëm-gëm par rapport ak diine ji kon bu amee bonne volonté yu woote ne kat na nit ñi di fexe ba élection doon ci jàmm ndax boo xoolee souvent bu amee ay dérapage wala may dérive ña say gaañu ñëpp suñu askan la ndaxte élection yi ñu jëm maanaam ñee xëccoo ñëpp ñoo bokk gox bañ dëkk maanaam bu dee commune Samb-Nassar wala muy Géejawaay ñëpp ñee xëccoo yëpp Géejawaay lañ dëkk kon ku si def sa morom loo ko war te def rek ëllëg da nga am kersa kon bu ñu amee bonne volonté ñu naan nañ signé charte je pense que ñëpp ko war a rafetlu ndax élection yi le 23 la mais le 24 la vie continue alors que ñun ñu dëkk kii farfee kee farfee le 24 ñooy bokkaat fa ñu dëkk kon nag je pense que loolu initiative bu rafet la war nit ñi war nañ ko mën a gëmlu te au delà de ça ñu xam ne ay nit bu ñu dëkkee ku ne am naa droit ne man lii laa bëgg wala lii laa bëgg dama am benn waaye ju àndal ku ñuy wax Babacar Seck di communicateur nee na bëre ma gënal sokola nit waruñu si xuloo parce que nit ku ne war naa am bëgg-bëgg war naa am gëm-gëm mais dangay nangu li nga bëgg nga bàyyi keneen bëgg leneen kon nag yàlla na yàlla def lépp jàll si jàmm ndax bu la 24 jotee ñooy bokkaat fu ñu dëkk. jàmm googu la ñëpp bëgg waaye euh, coalition Yewwi Askan ouvertement lañ ko wax duñu xaatim. république des valeurs bu Thierno Alassane Sall nee nañ tamit du xaatim est-ce que loolu du xajamal mbir mi. noo du ko xajamal parce que ku ñu woo si jàmm nga ne bëgguma te lu nit mën a am rek jàmm ko gën. daal laa si wax. nangul nga si nangul leen seen choix. non xam nga ñoom dañoo jàpp ne duñ ko kii man ko nit nag duñ ko signé man lu waay ut lu ne jàmm ko gën ndax si la jàmm jàmm si lépp xaj buñ ko talul duñ dem élection. buñ ko talul duñu tànn kenn buñ ko talul duñu fal kenn kon nañ ñaan yàlla lépp jàll si jàmm. lépp jàll si jàmm ñu dem ci euh, li nga xam ne moo jëm ci commune ba commune Sam Notaire commune Sam Notaire candidat nga fa euh, lan moo motiver sa candidature. waaw xam nga ñun euh, Sam Notaire 2014 <clears throat> c'est pas mon premier engagement en 2014 dama nekkoon tête de liste benn mouvement citoyen bu ñuy wax vision Guédiawaye biñ si bokkee aussi yàlla may nañu résultat centre de vote ba ñuy voté di école 16 on a gagné tous les bureaux de vote te mouvement citoyen lañ ñuy dem di dem ba jamono tey jii fii c'est en 2021 le président de la république man ma nekk responsable si APR nekk au niveau de Sam Notaire président di tànn tànn ma jiital ma kon li war a nekk suñu motivation mooy jàpp ne ñun démb dañoo taxawu suñu askan ndax nit ku ne fa nga dëkk yaa koy defar am nañu rôle bu ñu joué on a toujours compté pour le développement de notre communauté kon suñu motivation du lenn lu du defar suñu gox ànd ko askan wi. defar seen gox kon su ma la déggee gox ba dafa sooxe lu ko sooxe. waa mais li ko sooxee bëri na ndax Sam Notaire dañuy wax ne mooy centre Guédiawaye mooy capitalu Guédiawaye mais ku dugg Sam Notaire xam ne ñiñ fi teg ay cuune lañ. Aminata Kanté moom mooy maire ba. je sais la foo ko teg. parce que ku fi nekk pendant sept ans. tey bu ñu demee bas waa Samnati di laaj naan lan la fi def kon xam nañ ne kooku cuune la. parce que ba léegi yow munoo jàpp ba tey am na lu mu fa def ci wàllum pàcc. xam nga si wàllum pàcc du càgg ne li ko budget permettre du question weer at mu ne jox naa poste de santé ay ay ay subvention loolu loolu depuis commune bi ñu juddoo ba lañ koy def mais bu amoon gis-gis mu xool biir Sam Notaire cartographie sanitaire bu Sam dina xool ne tey Sam Notaire à part Roi Baudouin ah, dañoo am trois postes de santé. ban ak ban. muy muy poste de santé docteur mbay mu nekk municipal 4 nekk biir notaire am poste de santé bi nga xam ne mu ngi nekk amoo tefes am poste de santé mu ngi nekk HLM Paris mais bu jëlee axe Dora Aw ba mbodd 3 jëm ama Amadou Barry lan moo fa am kër sër bi nga xam ne ñun ñii bi ñu nekkee xale sax fa la ñu daan yóbbu kon bu amoon vision. dina def maillage bu koy permettre foofu dis mu am foofu mu def équité diggante boobu mu def mais xalaatu ko. parce est-ce que subvention yi mi nga yegg ca euh, poste yooyu nga wax. xam nga commune acte trois dafa may commune yi beaucoup d'opportunité mais nit ki bu amul vision mënu ko saisir parce que acte trois war na mën a permettre mu am. partenariat ba mën a tabax foofu waxuma la post de santé mais polyclinique même pour que nit ñi am diversification offre de soins yi nekk gën a yaatu biir Sam Notaire kon wàllum paj Sam da cee tum des na des na te ñun gëm nañ ne loolu priorité la beneen bi bu dee wàllu éducation dégg naa ko muy wax naan tabax naa bibliothèque mais école ba nga tabax bibliothèque am na ñaari classe yoo xam ne amuñu toiture nit ki bala moo taal bibliothèque day am fu muy jàngee kon nit day am gis-gis bu leer xam ne man. fii ma nga wax li nga wax garaaw la de. ña école 15. Hmm. dama lay limal école 15 am na ñaari toiture yoo xam ne classe amuñu toiture école 20 y a même pas 15 jours les bonnes volontés. ak le maire Aliou Sall ñu jàpp ba defar toiture yooyu. bonne volonté maire ba fu mu ne. mu ngi fi xalaatu ko alors que compétence am la dama la wax ay ñaari école dama neen école vingt ak école quinze waxuma la xam nga waxuma li sa biir conditions yi élèves di jàng mais dama la classe bu toiture amul no nu nit ki duggee. kon éducation ba dafa sooxee ci wees na sooxe. léegi est taxawaay bi ñuy waroon am moom ci li nga xam ne moo jëm ci lekkool ba ba. ak xale yi mën a jàng jàng bu ñoŋ ci biir commune ba euh, matewul. non mais des na lu bari ndax xam nga nit ki dana yor cër ñu jox la ko mais fekk bañ la koy jox xalaatoo ko préparé woo ko loolu da ko dal ndax 2014 bi Benno Bokk Yaakaar gagné commune Sam Notaire gagné Guédiawaye président da ne kat comme dañoo ànd ak Benno Bokk Yaakaar gañe nañu fexe ba ñu ñu ànd ko si gérer ndoo ko mu jël Golf Sud jox ko PS madame le maire Aïda Sow Diawara ko ñuy nuyoo passage ñu jël Sam Notaire jox ko AFP bi AFP waxtaanee ak le président Malick ko ñu jël Aminata Kane kon koo xam nga bi ñu koy jël préparé wul mais boobu bu fekkoon ne na mu war a doxee doxe na ko dana def diagnostic xam réellement situation bi mais ñun dañoo bokk ci nga xam ne dëpp bi commune bi juddoog léegi ku fi nekk ne gunge nañ la techniquement plan local de développement yañ fa def dañoo bokk ci ñu ko tabax nekk consultant tabax ko kon xam nañ réellement li ñuy wax. léegi euh, ci lekkool yi balaa ngi ci am yow sa pexe di ñëw nan lañu war a def pour jubbantiluwaat loolu sooxe na njàng bu sooxee rek dafay feeñ. waaw xam nga loolu damay wax ne il faut savoir prioriser nit ki da ngay prioriser. xamul priorité kon moom. non des na parce que boo léegi maanaam rubrique subvention jën naay kay tabanaaf bibliothèque mais da ngay toog ngox def analyse. te tey avec le maire Aliou Sall moi par partie de l'équipe bi ñu conçu lu ñu naan un système d'information et de gestion de l'éducation sans tey base de données feuille de route et situation école yi nekk géejewaay yëpp on a l'information kon waxuñu ñun pour bëgg a wax rek maanaam dañu maîtriser tey ji situation bi nekk géejewaay école bu nekk la fa nekk ci effectif la fa nekk ci situation table banc la fa nekk ci manquement. danañ ñëw ci solution yi euh, Mamadou Bousso Ndiaye la ñuy dalal. 88 la 628 84 84 bu ci mbokki Sam Notaire yi bëggee bëgg a dugg waxtu bokk ci waxtaan bi itam nangul nañ leen ko waaye ba tey ci commune ba ginnaaw santé bi euh, dafa sooxe euh, li nga xam ni moo jëm ci njàng bi itam sooxe ah kon xanaa li nga xam ne moo jëm ci cadre de vie bi moom Sam Notaire moom gongo. non Sam Notaire euh, keroog dama dégg madame la maire si benn émission bi wax naan def naa fay jardin. ma ne ko même bu fa defee jardin moom sax xamul ñaata jardin la fa def Sénégal toll na foo xam ne li ngay def da nga koy bokk ak askan wi waxtaan ak gox ba ñu xam ne lii ñuy def pour ñoom la nga ànd ak ñoom ñoom ñoom ñu xool na lañ ko bëggee mais bu fekkee dama ñëw rek tabax sama jardin daal dem mais population nan lañ koy gisee parce que tout ce que tu fais pour moi sans moi c'est contre moi il faut que loolu mu leer te développement local loolu la woote maanaam tey am naa yéene defar genre est-ce que fa mu ko def mooy fa fa gox ba bëggoon. xay na bu toogoon waa gox waxtaan dañ naan ko jardin bëgg nañ ko waaye fii lañ ko bëggee wala nii lañ ko bëggee kon loolu muy manquement cadre de des na lu bëri parce que tey jii pour bi jaar buntu commune Sam Notaire ñaataata ngi ni buntu maire ba sax suuf la daanaka la ëpp la gën a nekk que que tëli kon loolu des na mais du caageen nga naan man parti opposition laa nekkoon mais kañ la nekk opposition ay ah, bi muy bi muy nekk bi mu koy nekk maire ànd naag pouvoir même boo ko mënta defar mais de temps en temps ñu xoos ko nit ñi mën a jàll mais bu nawet amee foofu ndox ma dafay taa buntu mairie ba moo tax bëri na ñoo xam ne dañ ne tout sauf moom parce que ku mënta bale sa buntu mairie munoo bale feneen kon cadre de vie bi aussi des na lu bëri. infrastructure kon ci commune ba kon commune ba moom dafa feebar kon su ma la déggee. na commune Sam Notaire weesu na feebar. tey jii boo bëggoon organiser séminaire à Sam Notaire fan nga koy defee. laaj naa la ko. defal porte port porte biir Sam Notaire parce que nit da ngay am vision bu leer. jàpp ne tey bu nit ñi war a daje war nañ am espace bu ñu war a mën a daje mais bu dul salle de délibération ba nit ñi xanaa case du tout-petit bi mu jàkkaarloo la am mbaa sont obligés d'aller louer dem fu ñu fu ñu fu ñu louer ji kon loolu nekk na loo xam ne des na lu bëri. seen commune fan lay tirer ay ressources. commune bi am na marché Sam comme première source de revenu mais nañ ko war a taxe taxewuñ fa. lu xanaa marché bee sooxe. non mais marché mënut a sooxe parce que yow bu fekkee ne askan wi dañuy yor seen marché di jënd di jaay di la di la fay taxe mais danga ko war a defaral boo xam ne dana gën a mel na mu war mel beneen bi yaa a taks mais bu fekkee ne yow maîtriser woo sa situation de recouvrement boo moytul da ngay def tâtonnement rek kon loolu mooy réalité bi nekk assemblée maire bi taf yëngal lay def non weesu taf yëngal weesu taf yëngal. est que du candidat bu taxaw toog mooy taxaw di wax nii. no xam nga man dama jàpp ne du man maay wax nit lu ñaaw wala wax lu ma gëmul damay ñaan yàlla ëllëg Rewmi FM def proximité porte à porte ensemble na de. loolu kay mënut a ñàkk. def leen descente porte à ngeen laajte xam nga nit nga nekk maire ba yow sa dans ton propre parti ñu nekk sa liste sax dañuy tout sauf loolu information la loolu def leen descente Sam Notaire. kon biir këram. biir këram am na ñoo xam sax dañ ne tout sauf moom am na ñoo xam dañoo mujjee bàyyi parce que nee nañ kii moom nit ñi dañuy laaj mooy kan xamuñu ko. ñu ne maire ba dëkku fa. ma ngay fanaanee Cambérène. ñu bari loolu la ñuy wax nee nañ. non mooy réalité ma ngay fanaan Cambérène. Mm-hmm. est-ce que war nañ fal tey nit bu nga xam ne yeewewul ci askan ci. mais yeewul ak askan ba. mais loolu nit ñi am nañ si engagement bu leer ndax maire day accessible bu courant coupé nga xam ne yaa ñëpp koy bokk bu jafe-jafe nga bokk ñëpp boobaa nit ñi dañuy xam ne baay bu fekkee ne yow bu guddee nga dem sa yoon fanaane fa nga dëkk bu courant coupé maa dara xew fa dañ la koy yëgal kon loolu Sam Notaire jàpp naa nit ñi jël nañ décision ne loolu dootul am. mais ñu ci bari dañ naan mairie équipe la équipe moo koy doxal. kon du benn nit kon la fait que mu bañ fa fanaan loolu lu mun a indi tey gàllankoor. non xam nga maire dafa am lu ñu naan conseil municipal mais maire daf si am prérogative yu rëy ndax tey dañ ne maire lañ fal xam nga format bi dañ ne ki jiitu tête de liste mooy doon maire d'office. mooy bu bees bi waaw bu bees mooy wane ne tey li président xalaat ñu ngi am lu bëri lu ñuy natt ndax nit ñi dañ daan voté ba pare ba nit ñi voté 2014 Aminata Kane taxuloon ñu voté. dañoo gagné ba pare président ne nañ ko nañ ko jox waa AFP ñu jiital ko mais moom nekk loon de liste Mika Ba ak Abdoulaye mbay ñoo doon tête de liste. AFP lañ bokkoon. AFP Abdoulaye Mbaye AFP lañ wax Mika nekk APR. mais ñoom bi ñu génnee AFP dem grand parti <laughs> loolu moo kon ne mais moom nekkuloo tête de kon pour wane lu tax ñu xalaat ne tey jii dañoo war a wax ne nit ñi ñooy fal direct universellement directement leur maire parce que pour permettre nit ñi def un choix. mercredi bii ñuy dëgmal. Hmm. ci la conseil municipal bi war a def bilan hmm. ñoom lu ñu def foofu atum 2014 ba tey. Hmm. ndax tey yow boo doon tiiree bilan looy tiré. ah honnêtement day xam naa ne nee na def na fay jardin am na ay cantine yu fa waaye cantine yeggagul man awma leen lu mu koy tiré bilan ndax bu meer demee bay wax naan diwlin seer na mel ni maire ay gérer commerce kon Salawati xamul li mu yor lan la. dafa da jàpp ni dafa fàtte priorité commune bi. non mais dafa xamul sax luy priorité. dafa xamul luy priorité. wala assemblée nationale moo ko tënk. non mais est-ce que mos nit ñi mën nañ ko dégg assemblée nationale mu def benn proposition de loi wala mu il faut contribution bu nit ñi rafetlu. demal nga wàcc sàmm na te fee proximité porte à porte nga def sa reportage laajte danañ la mën a wax mooy kan ndax lan la fi def. kon des na jéego yi des na. des na lool. te waa Sam Notaire xam nañ ne ay jéegoom des na lool. 88 la 628 84 84 tey ñu dem ci élection yow nga ne maire bi bilan am néew na commune baa ngay sooxee am na lu ci bari lu ñu war a mën a def yow lan ngay proposer mbokk yi euh, Sam Notaire. xam nga man yàlla dafa def ne ku fi mës nekk maire depuis 97 premier maire mi euh, Ibrahima Diop ba tey ji ku ne appuyé naa la techniquement. ndax 2002 ba 2009 ki fi nekkoon maire dafa woo sampoon lu ñu naan bureau développement local man bokkoon ci techniciens yi encadré lool ndax commune boo mënta am une feuille de bu leer doo xam fooy teg sa tànk te Sam Notaire dem nañ ba am lu ñu naan un plan local développement kon man xam naa la fa ne. ban mooy priorité bi. priorité bi tey benn wàllu éducation ndax njaboot gi. ndaw ñi fa ñuy jàngee bu fekkee tum na mu war a mel melu ko jàng ba mun am résultat loolu nekk na beneen bi mooy municipalité dafa war nekk une institution demal da nga gis koo xam ne daanaan wàllu état civil lu jafe-jafe pourquoi parce que na mu war a doxee nit kii am na benn xale keroog damay toog ñu waxtaan mu ne man li ma gën a métti sama àdduna mooy dama war a dem di ut sama kayitu juddu état civil ma laaj ko mu war ko jot alxames ñun ma demal ba lëndi ba ma koy jot damaa fekk ñu clôturer examen entrance yi ba at boobu damaa redoubler kon loolu xam nga ne jafe-jafe bu rëy la nit boo jekkewul askan bi doo xam kon ñu wax ne état civil bi nekk na problème réel te pourquoi nit ñi war na mën a am soxla seen kayit duñu ko am dans les kon wane ne loolu beneen bi aussi boo nee gestion de proximité gestion locale dafa war a nekk une démarche participative dafa nekk une démarche inclusive ñun ñu gëm ne askan wi. dañoo war a def ci quartier lu ñu naan ay table de concertation de quartier waa quartier bi di toog di waxtaan di initier par rapport ak seen bëgg-bëgg kon booy def da ngay def lu ñu naan budget participatif budget participatif boobu mooy permettre nga xam fi nga teg sa tànk ñun dafa leer suñu bopp parce que dañoo bokk ci techniciens yi en cas de processus de local te démb domaine boo jël buum li mbëri da wax naa dañ koo mbappat doog a ñëw arène nationale dañ koo mbappat parce que on est un acteur de développement on a une expérience de plus de vingt ans ci accompagnement poursuite développement local kon ñun li ñu xam nañ ko ñu jàpp ne tey boo demee Géejawaay wax ma la Sam Notaire nga ni Modou Bousso Ndiaye ñun la li mu accompagne ci jigéen ñi ëpp na dix ans ndax dama encadre encadre jigéen fekk leen ñuy jéemantu ma ba ñu yor seen six propre système d' financement te boobu bañ koy def xalaatu woon ne dañuy politique ñu gëm ne il faut nga accompagner le développement économique local à travers ce qu'on appelle un bureau local maanaam muy wàllu encadrement muy wàllu accompagnement muy wàllu orientation tey boo jëlee wàllu sécurité même bu fekkee compétence boobu compétence de police municipale la mairie bi am mais ñun ça fait quatre ans ñu ngi liggéey ak ay partenaires ak communauté bi imam bajjan gox di waxtaan wàllu sécurité ndax tey sécurité force de défense et sécurité rek waruñu ko yor maanaam askan wi war nañ see dugal seen loxo si wàllu alerte si wàllu veille pour xool situation bi loolu ñun dañ ko liggéey ba am ay cellule suñu na ay cellules de veille et d'alerte dans les différentes zones yi nga xam ne moom la délégué quartier yi tëral pour wan la ne compétence boo jël rek ñun liggéey nañ si boo jëlee wàllu environnement. dañ jàpp ne loolu ponk bu am solo la ndax ku ne géejawaay ne filaaw ku ne sam notaire itam côté boobu itam war nañ ko fa mën a xaar euh, pàcc bu am solo la dégg nañ fi jaxat jaxatee nañ ko alam bi kenn amatul dara. Euh, lan nga ñu mën a wax ci situation boobu. situation boobu xam nga des fois li ma wax Sénégal nit ñi war ta wax ñooy wax ci yenn yi le la ville de Guédiawaye avec les différentes communes dañoo def un plan d'aménagement plan d'aménagement du littoral comme président déclassé na ko dañoo def plan d'aménagement avec ay côté infrastructure yi nga xam parce que Guédiawaye amatul fenn fu mu yokk fudul filaawo yi xëy na ay habitat ay logement mën na si am mais aussi aménagement kon li am solo. mooy ne bu fi filaawo yi jóge plan d'aménagement bi ñu arrêté ñu réaliser ko parce que loolu mooy li gëm parce que ñun dañ jàpp ne filaawo yi ask moomeelu géejawaay la waaye aussi fu ñu def ay dépôt mbalit mais ñu aménage ko nit ñi bu fa dëkk dëkk fa mais ñu def ay infrastructure lu ñu parce que tey am na besoin yoo xam ne population am nañ ko bu dee aire de jeu wala muy euh, des structures yoo xam ne dana permettre ay privé mën a développer activité générateur bi développer leur propre euh, activité mais permettre ndaw géej yi sam notaire wala ndaw géej amun seen liggéey parce que loolu mooy gis-gis bi mais du caage ne filaa filaa filaa mais filaa boo ko jëlee depuis yoof ba egg si géejawaay mais am na ñoo xam ne fa ñu dëkk ay filaa woon kon lii bu ñu demee ba aménagé ko plan deme c'est concerté un plan d'aménagement concerté moo fi ne. nekkul lu ñu parax paraxee. non gars yi ñoo wax rek xam nga des fois euh, li ma wax des fois dañu wax ñoom voilà. waaw mais am nay logement yu ñu prévoir parce que géejawaay rek foofu la mën am su yokk fu nit ñi mën a dëkkee amatul fenn fu ñu yokk. mais dëkkuwaay naam nit ñi soxla fu ñu dëkk waaye war na mën am yeneen su yeneen infrastructure am na université y a le projet de grand théâtre de Guédiawaye bu maire de la ville am foofu mais loolu c'est c'est c'est important dëkk day am ay espace de loisir dëkk day am bërëb bu nit ñi dëkkoo mais dëkk day am foo xam ne nit ñi mën nañu am mën faa liggéey artisan yi wala ñenn ñi am espace parce que loolu yëpp bu ñu ko organisé wul ku ne da ngay jël mbedd moo gis gis fa atelier buntu kër goo gis ni ki gaa euh, samp fa mbaaram te loolu du defar cadre de vie. du defar cadre de vie euh, am nga ci pexeem. incha allah rabbi. Mm-hmm. lan mooy parce que ñun priorité mooy da koy def ni naan démarche. Euh, inclusive boole ci ñëpp. boole ci ñëpp ñu toog ñu waxtaanee suñu parce que ñoo ko moom. il faut que ñëpp dugal seen loxo acteurs nag dañ leen di fàtte ci ci waxtaan wi. waaw xam nga man je suis issu du mouvement communautaire di am lu ma mës a gëm di ko xeex ngir développement gox bi kon ñun bokkuñoo koo xam ne dafa tëmb jékki-jékki rek dugg si wàllu politique man dama nekk activité acteur développement communautaire nit ñi xëy bis ne war a toog seetaan loolu ñu dugal ci politique. xanaa kon war nañ mën a yaakaar koppar gi géejawaay wala Sam Notaire li li muy am mun nga ko ful. gëm nañ loolu. ndax dama leex ne Sam Notaire am na projet centre commercial boo xam ne depuis 2009. fu mu toll. keroog ba fu maire bi initié bu woon fax bu jógee ñoom lañ ko fàtte ñoom ay waxu cantine la ñu wax alors que ce centre commercial là mënoon na permettre chaque année Sam Notaire am un en 2005 2009 Sam Notaire mënoon am annuellement 100 millions de recettes kon ñooñu bu ñu amoon xalaat war nañ ko réaliser pour yokk seen budget mais ba tey jii nii léegi naa keroog mu naan am naa projet centre commercial nga def fi juróom xalaatu ko matérialiser. am na ñenn ñoom it dañu dem di gëm la artisan yi waa fii projet bi mënut a ne dem ci gis nga nit boo bëggee liggéey ak nit ñi da waxante ñoom dëgg ki ànd ak yow na ànd ak si dëgg bu la bëgg a votel mu votel la te liy defar askan bi mooy ñu waxante dëgg ku nekk foo xam ne fa nga toog waroo fa toog ñu ne demal toog feneen foo xam ne mooy place loolu yëpp encadrement la ay accompagnement lépp lu ñuy def dañ koy waxtaan ak askan bi jël si matuwaay yemul laaj ba nit ñi xam ne ñun ñëpp ñooy ànd defar gox wàllum loisir cadre de vie et eh, mbirum tàggat yaram xanaa da ngeen ko fàtte ci seen programme. fàttewuma ko parce que fan yii si ginnaaw amoon na benn projet benn terrain synthétique bu nga xam ne dañuy def dans un quartier jeunes ya fa nekk ne doo ko fi defee. lu tax ñu bañ parce que loolu itam luy doxal dëkk la. waaw parce que démarche baa baaxul dama ne nit booy defar dara pour askan bi da nga koy wax ak askan bi lu tax ndaw ji bari bañ bu fekkee da nga fekk ay ndaw ji yegg si terrain di fa football nga ne koo bëgg a defar ne leen lii laa bëgg def ñoom ñu wax la lan lañ si ragal ak lañ si xalaat ndax boo ko defee acte mu nekk un acte privé ñoom bu ëllëgee nu ñu si jote xam nga nit boo nee damay defatar ñoom xamuñu nu ñu si jotee bu ko duñ si sawar dama yaakaar démarche bi moo moo moo faussé en tout cas ñun dañu gëm ne loolu priorité lu ñun parce que ndaw ñi il faut ñu am aire de jeu mais lépp lu ñu def dañ koy waxtaan ba ñu comprendre ne aussi lu ñu war a rentabiliser. fan ngay jaar xanaa partenariat ngay daal di. non moom laa la wax. tey acte trois bi daf ñu permettre partenariat public privé bu nga am am nañ ñu yor seen i moyens war a investir mais bu fekkee ne devant ñoo am ñu interlocuteur bu am gis-gis bu leer kon collaboration du yomb mais ñun xam nañ loolu parce que bi ñu nekkee foofu en tant que technicien bi dem nañ ba Belgique deux fa di suivre des séances de formation sur le financement développement local lo développement local foofu la jëm mais nag bu fekkee ni que amul gis-gis boobu day yaakaar naa xëy rek fayu patente wala xëyu ay taxes sur la publicité alors que dépassé nañ loolu. dépassé nañ loolu euh, ba tax na tey stade bi lu Barry seen localité la nekk est-ce que tey politique mënut woon demee neneen ngeen mun ci rocc dara ci biir stade bi itam. stade bi mu ngi dans le territoire de Sam Notaire mais c'est la ville qui gère. Mhm. mais loolu. waxtaan la waxtaan la. demee le maire Aliou Sall war nañ mën a waxtaan ba ñun recettes yay génn si stade Sam Notaire si wàll loolu nag mooy cohérence politique. et je pense que loolu on est dans cette démarche. <laughs> Euh, lan moo war a nekk tey euh, déclicu li nga xam ni moom moo jëm ci Sam Notaire wax nga ko euh, am na fu ngeen toll war na weesu tey ak appui ñi nga xam ni moom moo jëm ci mairie ville bi est-ce que ñoom mairie ñu ngi sentir jàppandalu mairie ville bi itam. waaw mais xam nga ni ko bu fekkee politiquement àndu leen ndax collaboration moom dana war. mais le maire Aliou Sall on est ensemble et on collabore ensemble et on compte travailler ensemble parce que cohérence politique boobu mooy permettre xam nga la ville amul territoire mais bu ñu àndee liggéey mun nañu ànd outil tabaxandoo parce que loolu mooy développement et je pense que tey message boobu la ñuy lancé waa commune Sam Notaire ne leen jël Modou Boussa Ndiaye teg ko mairie Sam Notaire jël Aliou Sall teg ko ville de Guédiawaye ñoo ànd liggéey ngir njariñu Sam Notaire ngir Guédiawaye Bokar Kane candidat la Bab Makan ba Makan candidat la mm-hmm. yow candidat nga fa mm-hmm. Yewwi Askan Wi itam candidat nga fa mm-hmm. euh, ak euh, jàppandalu Malick Gakou ak Aminata Kanté euh, est-ce que loolu di indi gàllankoor tuuti ci Modou Bousso non du indi gàllankoor Malick sama grand frère la gox ba la dëkk de gox ba la dëkk ñoo bokk même sant de bi ñuy voté moom Aminata Kanté ak mon frère ay Aïdara mais saa ñu tase ma gagné la ci biir seen biir centre de vote biir de vote bi ñu wote ma gagné la te boobu bi may bool ne ma candidat mais mbir yi soppeeku ah. mbir yi soppeeku nañu yàlla yóbbu ak jàmm le 23 janvier parce que ñoom xamante nañ xam nga man bi ma leen di gañee bokkuma parti politique dama demal sama bopp gagné leen asantuma ak moom ma nekk ci parti politique ak yeneen responsable yi nekk Sam Notaire parce que maillage bi benn Bokk Yaakaar am Sam Notaire benn parti am ko fi benn parti am ko fi kon may profité de l'occasion di remercier tous les membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Sam Notaire muy les partis alliés muy les responsables de l'APR démb am na meeting bu ñu def bi ñu jugee sa quartier général dañoo dox defe naa ba ñu doxee monsieur Dramé sama gars yi est-ce que danañ dem élection dama ragal ñu déclarer forfait. Ah, élection moom dañ koy dem. non dama ragal ñu déclarer forfait dama ragal ñu déclarer forfait parce que li ñu gis démb mobilisation bi ñu gis nit ñu ànd dox tout les responsables de Benno Bokk Yaakaar dem bi ñu tëddee nelawuñu Euh, élection bi la nga la nga yaakaar woon moom war mun a nekk enjeu bi tey foofu. enjeu bi du lenn lu dul. élection locale la election de proximité la. nit ñi dañuy tànn koo xam ne xam nañ ko ràññee nañ ko. démb tey doo ko dégg mais nit ki dañuy nit ñi dañuy tànn koo xam ne wax na leen lu ñu mën a dégg. da nga jàpp ni maire bi waxu leen loo xam ne mën na dégg. askan nañ ko dégg non kooku euh, dafa nekk koo xam ne moom déjà hors course. ah lu tax ngay candidat muy candidat nga ne or course. waaw ku ñu jox xam nga démb am na waa jox ne Dakar du saf ñaari yoon mooy am lu muy tekki ku ñu jox pendant sept ans munoo wax bilan am na sama gars yoo xam ne su may samay xarit lañ ñu ngi koy jéem a tabaxal bilan man ko nag bilan bi xaw ma noo koy défendre loolu ma dana dana ma jaaxal dañ koy défendre kon li ñu gëm. mooy danañ woo askan bi présenté leen ñun bu ñu fi nekkee lañ fa nar a def te askan bi xam nañu démb tey parce que xamewuñu ci wax luñ dul def ndax bëgg falu aussi du tax lu wax lu ñu gëmul dox lu ñu nekkul ndax fa lañ juddoo yara fa màggee fa ànd ak askan wi liggéey ba ñu ràññee ñu xam nga nee naa la man dañ maa fekk ma toog ñu ne yow waratoo seetaan ma jug toog kon man développement local laaj njëkk di liggéey ba nit ñi gëm dugal si wàllu politique man politique daf maa dab bokk ma koo xam ne da ko def ne suba teel politique politique ma jox la benn anecdote président dafa wax ne nañ ko bàyyi mu tànn man président tànn na musumaa gis mosuñoo wax téléphone mosuñoo nuyoo kon bu président demee bay tànn koo xam ne amul gars yi ñu jaar ci diggante yi. kenn euh, jaaru si diggante la mhm. xam nga bu doon kuy jaar si diggante bi bëri na waa amoon na ay nawle yoo xam ne bëggoon nañ kon ñi jaar si diggante xanaa ñu ñu ñu ñu defal seen bopp parce que si nekk amoon nga ambition. kon loolu am na lu muy tekki si gox ba ñu dëkk ñun ragaluñu la ñëwal nga def proximité à Sam Noté laajte kuy Modou Bousso Ndiaye ñu wax la. élection yi daanaka euh, léegi mu jot daanaka li ci des bareetul tey li nga xam ni moom moo jëm ci élection yooyu déggoon nañ fi itam géejawaay ville bi itam euh, Aliou Sall dafay utaat li nga xam ne mooy beneen mandat géejawaay gis nañ fa euh, déggal Golf Sud gisoon nañ fa xët-xët ba fa amoon diggante laat Diop ak ki nga xam ne moom moo di Néné Fatoumata Tall kii ngànk wàllum jeunesse hmm. est-ce que jàpp leen ni frustration yooyu noonu mun na leen indil gàllankoor. non loolu dépassé nañ ko. xam nga en politique dafa am ay primaire bu fekkee dañu ne dañuy am vers un choix mais ku ne dafa am bépp militant am na droit yëkkati loo xam ne. bëgg naa jàppoon nga ni laat Diop mooy choix wu golf. laat moom la président tànn. Néné ma sœur ministre de la jeunesse. dafa bëggoon président moo tànn jiitalaat te nen na tey mooy directrice de campagne bu maire de la ville Aliou Sall mooy piloté campagne yu Aliou Sall kon wax ji jeex na. est-ce que géejewaay yëpp da ngeen ko mën a jotaat ndax dina yomb Aline euh, Ahmed Aidara mairie ville euh, Sam Notaire yeneen gunaas nim euh, yeneen gox yi. est-ce dina yomb. rafet naa su njot rafet naa su njot xam nga ay candidats yu jàkkaarloo ñu duñu leen xep ndax ku ne am na loo mën mais dañu gëm ne ancrage bi ñu am ak mayage bi ñu am mënuñoo taxaw suñu kanam man loolu laa gëm xëy na ñoom am na lu ñu gëm kon jàpp nañ ne cinq collectivités territoire yi ñu fa nekk yëpp muy Golf Sud di Njaareem di Sam Notaire di Médina Guinguinéo danañ ko gañe ville bi it dañ ko gañe loolu laa gëm te parce que loolu lañuy liggéey guddi loolu la ñuy liggéey bëccëg ku ne élection tamit non ay carte yi tey li nga xam ni moo jëm ci carte yu baree ngi nelaw ci yenn centre yi ñu war ko dem jëli mais ñu ci bëri dem ñu jëli carte yi néew na lool ñuy jëli carte yi est-ce que tey euh, la nga xam ne moom mooy tax nit gagné euh, loolu ñu ci bëri jële seen carte. waaw loolu lu am la moo tax. dañ ko yéen waru leen def ay euh, li nga xam ne moo jëm ci sensibilisation askan wi dem jëli seen. carte loolu laa la bëgg a wax ñun ñu ngi communication bi loolu desee bokk. ndax bala nga naan naam danga nga fay ne moo tax militants yi lu ñu bëri bëri dañ naan eh wax ji du ay mbooloo yu bëri na ku ne jëli kartam kon élection yi ñu jëm du ay élection mitin du élection folklore élection proximité la bunt ak bunt parce que pour sensibiliser nit ñi boo ma bëggee man mam doon maire da ngay jëli sa carte votel ma loolu moom rassure-toi parce que loolu duñu si jóg di wax ak nit ñi Sénégalais nag ñoo am abiti nekk ba ne suba la ku ne di bërti bërti te loolu dañ ko war a dépasser parce que nit ku ne war nga ah, def sa devoir citoyen mooy voter mais voter boo ko bëggee def da nga sa carte. carte nag commencé nañ ko joxe depuis le huit ñu ngi si commission à la mairie am na commission bu fa nekk kon nit ñi nañ jëli seen carte loolu mooy li ëpp solo. mooy li ëpp solo mode de bi maa la ko doon junj sànq soppi nañ ko léegi raw gàddu la. Euh, li nga xam ne moom moo nekkoon bu njëkk nit ñi dañ doon voté après ñu daal di tànn ñi teg xool nu ñuy waxtaanee seen biir fal benn candidat léegi amatul naka nga gisee changement mode élection boobu ndax euh, rafetlu nga changement bi. mais loolu moom laa wax dama ko rafetlu ndax li dal Sam Notaire ngeen gagné ba pare. mooy exemple yu may jox. nga daan ne jox leen ko diw nañ ko jox ñii mais population bi ñuy voté. dafa am ñu demoon ne voté leen kon bu président xalaatee lool tey ne nañu tànn population de élire directement leur maire mooy ne ëllëg ku ñu fi fal boo def la ñu ne bu ñu fontoo parce que il faut ñu dem boobu sax mais boo falee une liste mu paree gars yi ruuxalante jaar fii jaar góos ñu uti lobby ba kenn jiitu ñu naan ñun boo waxee ñu ni fal leen ma mais tey ku fi teg da ngay jàpp ne askan bi la fal boo deful ñu askan bi jàkkaarloo yoo loolu dama ne choix bu jaar yoon la loolee permettre ñi ñi fal xam ne askan wee leen fal. ñi ñi fal xam ni askan wee la fal presque ñu ngi ci njeextalu émission bi euh, tey li nga xam ni moom moo jëm ci ministre de l'intérieur gis nañ ko mu génne benn arrêté li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum port d'arme ak yëpp dañ ko daal di fànk euh, bëggatuñ ko gis li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum itam waxuma ni dañ ko arrêté mais nervi yi dañuy gis itam ci li nga xam ni moo jëm ci meeting yi borom doole yi est-ce que tey jotul. ñu dem ci élection apaisée yoo xam ne du am xiiro du am ŋaayoo ndax opposition opposition bi yàgg nañ seetlu ni euh, mbir mi euh, xam nañ résultat bi ba noppi. waaw xam nga loolu bu nit demee ne maa ngi jóge dafa war a xam naa résultat bi xam nga loolu. ku ah, jaaxal ku yéenay gagné ndax ah, intérieur si yéen la bokk. yàlla nañ gañe parce que ñun dañoo bëgg a gagné moo tax ñuy dem di compétir. nga bokk di compétir ba fan naan résultat xam na xam nga kon kooku bu doon am motivation cent amul dix. kon na bàyyi nit li mu ne day gëm boppam wóolu boppam ñafe ngir gañe li nga wax ci wàllu violence man yàlla daf ma natoo ça fait de cinq ans ma bokk ci ñu nga xam ne ñu ngi prôner la non violence ci forme bu mu mënti doon y'a même pas un mois pare nañ ma match de football ma bañ ne duma ko ko ne politiquement dama koy parrainer dans le cadre d'un cadre daal dans par rapport ci benn cadre bu ma jiite di xeex violence woo police ñu ànd waxtaan ak ASC ne la nit ki war ngeen football ku ne ku ku gañe ñu nangu ne gañe nga ànd kaf ree parce que sport dafa war a boole nit ñi de la même manière dans la lutte violence bi du du politique bi rek mais dans tous les secteurs mhm. il faut que nit ñi am beneen gis-gis waaw nan ngay demee ne yow di football te kenn du la gañe loolu xanaa kooku du sportif mais loolu li ko waral ñun am nañ ci jàngat ndax tey dafa am phénomène boo xam ne ñun la phénomène de paris sportif da ngay dem dans les stades ay xale yu ndaw di wax naan ku njëkk am corneel ku njëkk dugal ku gagné di si teg xaalis. mooy violence mooy loolay jur bi. parce que ku ku si teg sa cent mille ñu gagné la bu génnee danaan xaaram dem fayee ko ji ku mu romb agressé la. kon loolu ñun dañoo bokk ci li ñu gëm ne il faut que nit ñi xeex la violence parce que amul njariñ ndax loolu du luy jëmee askan kanam ndax ku ci wàcc euh, raay tey ngay gis xale yi ndaw mineur ñu jàppale ñuy agressé ñu dem prison. waaw kooku bu dee dugg prison xëy na dana xam lu mu xamuloon mbaa mu gis lu mu loon kon nag loolu ñëpp ko war a xeex. élection nag benn diir la rek te ma jàpp ne ñi nga wax ne ay candidat lépp ñoo bokk commune bi ñu dëkk te ku ne yàlla def na ñii bokk ngeen école ñii bokk ngeen espace yoo leen daje kon warul dara warul tax nit ñi di waxante lu ñaaw wala defante parce que bu la 24 jotee dañuy des kon nag nañu rafetoo ku ne nag am nga droit uti tey dama lay jot exemple am na candidat boobu doo xam ne day dox ba dugg sama fekk ma man ko kaay muy sama jarbaat mu am listam ma nangul ko listam ñu weccoo mun ma vraiment kontaan naa man ko lii mooy li rafet parce que man def naa ko 2014. exemple la def naa ko 2014 am na suma benn grand di ko ñaan si moom xare ko àjjana yàlla def na ren fekk ku ñu wax euh, Arouna Mbaye ñuy def proximité ba jub këram ña ma àndal bëgg a jéggi man lu tax ngeen jéggi ñu ni fi kër Arouna ma dugg fekk ko fa ne ko grand dama lay campagne boobu mu ree ba tëdd ne ma nag lii nag maa ngi koy doo gis kon nit ñi nañ jàpp ne élection yii askan bee fal. ku ne war ngaa mën a présent sa programme. bàyyi nañ voté mais nañ jàpp na le 24 bu jotee dañ Sénégal day continuer. Modou Gousso kàddu gu mujj gi lan la. waaye sant la di la gërëm si invitation bi di gërëm waa groupe di leen ñaanal euh, liggéey bi gën a yokk waaye di dellu ñaaxaat ñi nga xam ne maay suma coalition. muy coalition benn Bokk Yaakaar ki ko jiite di le maire Aliou Sall au niveau de la ville. mais aussi ñi nga xam ne maa ngi ñoom bokk liggéey fii si Sam Notaire ma leen di gërëm di leen sant démb si mobilisation ndax le candidat de Golf Sud le président directeur général Lat Diop dafa ñëwoon démb di ma gunge si jàppale ma woo njabootam yëpp nañ jàpp kon ñu ngi koy remercier waaye di remercier parti allié yi nekk yëpp si Sam Notaire ak tous les responsables de l'APR muy góor muy jigéen muy mag ndaw même les sage di leen wax ne kat ensemble nous allons gagner jërëjëf. ko sant di ko gërëm moom Mamadou Ndiaye. moo euh, Modou Bousso ci noonu lañ ko gën a xamee ca diwaanu Sam Notaire kon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen gërëm ñi nga xam ne nag euh, jokkoog naag ñoom ba ñu yembal émission bi gërëm Léopold Mendy moom mu nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité incha allah rabbi